suñu tànk fii tey nag xëy na ni mu deme tey daawu ni deme mais lu yàggul rek ñëw nañu fii seet si suñu collègue suñu naataango suñu mbokk El Hadji Talla Diagne loolu liggéey la boo xam ne mair yi nekk ci biir département bi dañ ko daan def ci saa su ne mu am fu ñu daje bërka démb ñu ngi woon Kayaar tey ñu ngi fii ba xëy na ëllëg ñu nga jëm Fandène walla euh, Nooto wala feneen di leen xamal nag ne Alaaji Taala comme ni ngeen ko waxe yéen a ko seedeel seen bopp mu nekk nit koo xam ne kenn la ci ñun dafa am bis ma ne ko fekk mu nga màkk bu ma juumulee en 2016 fekk ñuy dem élection au conseil yi euh, chaque jour mën naa ne dinaa ci jokkoo ak moom ma xamal ko ne yow de yàlla defal na la loo xam ne man ci sama bopp de ñeenaa la ci mu ne ma lu tax ma ne ko xam nga nekk fi di dem ci ay jongante yu am solo yu mel nii nga nekk bitim réew mais ñi nga bàyyi sa ginnaaw ñu taxaw ci taxawaay boo xam ne yaakaar naa ne yow boo fi nekkoon sax doo ko mën ñu ngi nii di ma déglu ñoom jaañ mi ñoom ñëpp ak ñoom job euh, euh, maget liggéey Adama job ci liggéey bu rafet bi nga xam ne taxaw nañu ci ginnaaw taala liggéey ko ma ko ñi nga fi bàyyi ah amel nga leen njukkal war nga leen sant war nga leen gërëm parce que loolu lu am solo la te yombul nga absenté réew mi nekkoo fi mu am luñ la fal ay nit taxaw sa ginnaaw doxal la ko li nga ci waroon def yépp ñu def ko loolu lu am solo la loo xamante ne gaa yi def nañu ko fii ci sa ginnaaw yaakaar naa ne jokkoon nañu depuis màkk ma wax la ko bi nga fi ñëwee itam ma ñëw ziyaara la di la ko gën a feddilaat eh, di wax nag ne comme ni ñu ko waxee rek eh, xëy na sax waruñu fi woon jël kàddu ndax ci ni ñu organiser woo su fekkente ne ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñëw na ah dañu koy bàyyee nag lépp li ngeen wax nag doon nañu ko ko doon jottali xëy na am na lu ko ci raw waaye nag xam nga wolof yi dañuy wax ne kuy yuut moo neex a jàngal tuflit ndax moom maire la bu ñu jàpp rek ne ministre la li ñuy daj yaakaar naa lu ko ëpp lay daj bon xam na lépp te kooku xalaat nañu ne ci li ñu fi wax bis bu jàkkaarloog ca fa ñu ko war a waxe dina ko wax ca na nga xamante noonu lañ ko bëgg parce que xam na ko déjà kooku dama koy préparer le terrain bi foofu rek ndax xëy na am na yoo xam ne fekk ko fi yii rek la ñu amoon kàddu yoo xam ne ñu ngi ko doon wax jëme ko ci suñu naataangoo bii ji taala mais it ko ci waa dëkk bi ci mobilisation bu rafet bi nga xamante ne monsieur le ministre depuis ce matin ba léegi ñu ngi fi kenn bougéwul te nag ñoom ñoo ko waxal seen bopp bu fekkonte ne amoon nañu la ñu bëgg du fii lañ koy defee waaye ca mbedd ba la ñuy tànte ñu defe ko noonu ñu nit bi ñu fi ñëwee ñu gis surprise ndax dañu fi daan ñëw rek ñun maire yi ñu toog am yu ñu waxtaane dem waaye bi ñu ñëwee fii gis nañ ne vraiment euh, dëkk yépp mobiliser nañu ñëw fii malgré que sax xëy na moom ci boppam bëggewu ko woon nii euh, bon temps la vraiment ñu ngi lay encourager di la xamal ne euh, ñun itam ànd bi nga xam ne moom la ñu ànd ak yow mooy la nga xamoon ci ñun démb ak bëkk a démb soo fi nekkee ak suñu fi nekkul ñun ñëpp kenn ku ci nekk mën na remplacer sa morom loolu la yàlla dogal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di nuyu mbooleem ko fi teew monsieur Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu sëriñ bi Moustapha euh, lii lépp day wone ak cofeel ci ànd gi nu ànd ci réew mi bëgg a defar réew mi. ñii yëgunu réunion bi réunion bi yëkkatiw leen waaye luy defar réew mi moo leen tax a jog pour commune ba ay am am am ay emploi yu mën a liggéey e, di sant bu baax sëriñ Ngagne Demba Sarr ci kàddu yi nga xam ni moom la fi jël jëlal ko ay kilifaam waaye jëlal ko waa dëkk bi di sant it képp ko fi teew ki jël kàddu ak ki jëlul kàddu monsieur le ministre man maa taamu tey trent 38 village yi ak vingt 23 amoo yenu am muy 51 villages dëkk bu nekk kenn jóge fa ndax nag day bare loo xam dafa ump nit ñi ndax buñ ñu falee ñu di ay maire nga wëlbatikuwaat part Macky Sall nommé la ngay ministre joxaat la département Kees te bis bu ne ñun ñoy dajé suñu paré nettali leen bu yagge xel day tey lima ci jublu it jëm élection 2019 dafa ñew ba paré ñu dugg ci suñu birum nek waxtaan genn dem rendre leen compte doyna leen waye li mo gëna a lolu la ci tam ndax politicien bu lay dox te du laqatu man noonu laa mel bëccëg laay dox ci rajo lay wax waaye duma ma te bari loo xam ne ñoom ci gox goxaan yi lan nekk bari na loo xam duma ci dugg tey parce que wax nan ko ba mu jeex li am solo rek mooy yow la ñuy déglu waaye nag déglu googu li ma ci taamu mooy président loo wax ci président ak Sall nga ko jële doo def lenn loo xam président Macky sàll santu la ko waaye doo wax lenn loo xam président Macky Sall santu la ko te coow li bari na wax ji bari na leeral jot parce que nag yéen ñëpp xam ngeen ni fii ci commune Thiénaba man maa fi nekk responsable APR nekk coordonnateur coalition Benno Bokk Yaakaar tey mbooloo mi fi teew du waa APR rek ñoo fi teew du waa PS rek ñoo fi teew mais du waa AFP rek ñoo fi teew ñi fi teew tey mooy coalition Benno Bokk Yaakaar te it noonu laa ko waxe ca mairie ba ñépp di ko dégg ma ni képp ko xam bokk nga ci coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay ñaan bu dimanche nga ñëw sama kër ñu teeru ministre bi teeru sama nattu nga maire yi ñu toog waxtaan ak yéen parce que gëñ noo toog bu fekkee nag saa bu nu dajee mbaa bu nu waxee élection dafa jot mais day mel ni kon ñun dañ leen di jariñoo mais leeralul leen man maa taamu ñu daje ak yéen avant ñuy àgg ci élection man maa taamu ñu leeralante ba kenn ku ne xam fa nga jëm euh, di sant bu baax nag Tanor Diagne ci kàddu gi mu jël euh, defe naa ne monsieur le ministre jëkkuma la ko wax tey nee naa la commune bii bi mu nekkee commune rurale réew mi moo ko gañe wan 2009 la ko PDS mas a gañe te biñ ko gañee ba pare ñoom ci la nekk ay conseil nekk réew mi waaye bi nu àggee ci élection yoo xam ne président Macky sàll moo ko moom ñoom ñëpp nekkan ay conseil réew mi dañu ñëw jàppale ma pour lu ma yor sama yëfi yi bopp la dama yoroon ay moyens di dimbali nit ñi yàlla dimbali na ma moyens yooyu fa ma ko doon jële ba bisub tey maa nga ci damay bay damay sàmm taxan sax dinaa ko def ndax lan dañ kuma ma man may politicien bo xam ci mbedd lay taxaw ni ma ku ma joxañ ma sa baaraam man duma teggi mbedd duma teggi dekk duma teggi keur aw ma frontière neex waxal fuma neex dem ndax defuma fuma fuma te len lumay teggi nit ci digg penc la ko wax waxat na ko tay ci presse bi lol nak lan moo tax ma ñime ko dama xam sama bop ndax fi la dekk fi laa juddoo fi laa màgge fi laa defe lu ne kon war naa am loo xam war naa koo jomb te nag euh, am na lu war a ñuy wax lu yàgg rek dëgg la te fi mu ne coow li bari na te coow li li muy bari bari bari ñi ci ëpp ñëpp yaa leen ci mën a génne loolu nag laa bëgg mu leer fii tey parce que nag ñi naa mën a mën a bari na. waaye nag am na ku nu joxoñ ka nga joxoon yow yaa koy wax du man mii maa koy wax bari na ñoo xam ñu ngi dugg ci commune bi di digle di diggee yoo xam ni yeneen président Macky Sall moo leen ko jox moo leen ko wax ndax ku nu jox da ngay def waaye moo leen ko wax la ñuy wax waaye ma jàpp ne président Macky Sall lépp lu muy wax parce que nag boo gisee ma taamu dëkk bu nekk tey mu teew fi dëkk yépp la dem di fa monter ay projet ne président Macky Sall moo leen ko jox ci aw conseil bi nu doon parce que wax day leer mais jàpp naa ne Mamar Sis ci aw conseil la bokk Daouda Tine ci aw conseil la bokk waaye defe naa ne président Macky Sall wooyugul kenn ci ñun ni la boo demee defal nangam ci wàllu aw conseil mësul am lu nuy wax maire bi la ñuy wax lu ñuy def président lu muy def ci maire yi la koy jaarale la tax mu wax ko it xañ na moo ko xam monsieur le ministre de ci action waaye monsieur le ministre dëkk bii di ba di commune ba am na ko wax léegi am na ko wax léegi ñu dañoo bëgg président Macky Sall jàppale ma yokkal ma samay garaat soxlawu ma soxlawu ma benn ndomba tànk ba président Macky Sall taxaw taxaw man maa taxaw ni ko te ci presse laay waxe kere ba mu jëlee téléphone am woo ma waxtaan ak man. dama ko wax ni ko lépp lu nomination du maire soxlawu ma man lu ñuy xëccoo laa soxla parce que lu ma xëccoo dinaa ci jot parce nag wóolu sama bopp moo tax fii nu toll nag la ma doon xëccoo man xëccoo naa maire jot naa ci xëccee naa au conseil jot naa ci soxlaatuma dara lu dul population bi ma ni président Macky Sall soo amee lu muy joxe Nama ko jox ma jox ko militant yi nama ko jox ma ma jox ko ñi nga xamne no joge ci yenen parti ñew ci man waye man soxla lu ko dara parce que wax day leer wax boobuy leer nak mom la bëgg wax sax fi parce que euh, jamono yé passé dafa am benn way bu dem wax ni dama jaay 600 hectares may len ay tàcc la conseil yaa ngi te wax boobu bu ñu demee ba ci biir yow monsieur sax tuumaal nañ la ci te wax naa la ko ñun avis la ñu joxe te keroog bi ministère yi bind leetar soxla benn zone boo xam day mat 300 hectares ñëwoo fa waaye sa ndawa nga fa maire yi toog ña nga fa ñu soxla 300 hectares préfet moo ko organisé woon. man banay dem di seti zone ba demuma préfet su préfet mo dem ak chef ak chef ser ma wax len ni len amna fo xam matna 600 hectares te lolo mo am defee su fa dara kéré bi partenaire ñëwé ma and ak ñom dem ba fa mo may len fi de fi lay wax moma gu len ko ndax dafa am ñuko war diko bay te la koy jël ci seen loxo do waxe kessé man nak baykat yi la andal ndax seen mère ñoma fal waye bu nu gisé lu ko jar ñu jox leen ko su suñu gisul lu ko jar ñu téye ko doon ca bay lan doon def la bay doon dundee ba saxub sikkim mën na caa continuer ba màggat ñu xëy xëy dem ci presse bi ni maire jaay na 600 hectares ma téye sama loxo ma xam ne ku jaay 600 hectares kan ko jaay war naa am fayday dem def fa dara depuis boobaak léegi ndax kenn dem na fa kenn defu fa dara ndax kenn ñëwu faa jaar ma di leen wan ni kàcc génn li nu may tuumaa lépp du dëkk sama kër gii ma nekk dërëmub état demu ci maa jaay sama kër quinze millions àggale ko yoruma benn oto boo xam état ma ko jox joxewuma benn dépasse bu ma état jox amul parce que man maay état su ma dee reyante ni man a ba nekk maire mais déetuma daw ci ginnaaw kenn naa ko dimbali ma duma ko def damay liggéey faj samay soxla fajal nit ñi seen soxla man noonu lay dundee su ko defee nag tey li am solo mooy responsable APR ñépp xam na ni man la def naa kenn wérantewu ko coordonnateur coalition Benno ko Yaakaar yéen a ma ko def kera ba ngeen ma koy def góor a jaaña nga ne bi ñu demee ba am ñu bañ ñi daan koy wate may leen man jiite du taxaw du ma taxawate ma taal sama oto dem kees cent quinze délégué ne fa daañu dem élection ma am cent neuf kon ka ci amul dara mais koo xam ni mënoo gagné sa bureau mais doo jiite commune te yéen a ko sàkkal seen bopp kere ba ngeen ma falee ministère bii moo ne moo yëkkati cinq cent mille jox ma ca kees téeméeri junni la ma jox mi ngi nii guddi googa ki fi nekkan ñu financé ko douze million gaa ñi xëy maa ngi nii ne ma 12 millions mënta bëri 500000 may la xaalis du gagné ñun ma lii mënuñ cee dem sama kaar boo xam fay nan ma 4 millions ma bañ ma wanteer ko 3 millions 500. boole ko ak 500000 yi million ma jox muy 4 ma génne sama ñaari oto jox ko góor jaan benn oto ba kere ba ngay ba ngay def campagne ca jaayaan ci élection législative yi kere la kuule ba bisub tey ma nga gaare état bi mosumaa jox benn oto. te en tout cas am na ñoo xam ni amuñu ñaari nit te par exemple mi ngi leen di jox ay oto man oto yi ma jox yóbbuwuma ko sama kër yóbbuwuma ko kenn population bi laa ci jàppale ku soxla ma àll oto kon ñu bëgg président mi ngi ñuy jàppale bu baax bu baax a baax a baax ci soxlay nit ñi ndax 51 villages yooyu may wax bi yàlla dogalee may jël maire bi 2009 neuf village moo ci am courant neuf villages. dëgg neuf villages moo ci am courant tey dix huit village moo ma dese. yi ci des yëpp samp nañ ko. te loolu président moo ko def. noonu moo ko defee noonu la ko defee sama collègue maire yii waaye doyul ndax bu dee ci wàllu piste maa ko gën a soxla ndax communiqué la ba amul ñaari mètre. ndax waxna la ko sa bureau dina ko waxat fi ñu deugal ko bo demé droite dem gauche dem penku dem saw ben mètre piste amu fi te nit ñi soxla nan ko waxna ma ak yow nga ne ma insara bi bangaj ba Touba Toul 2016 bi dinañ ko def 2016 xat la lol ñu dugg 2017 ñun ma insara bi avant élection législative bi dinañ ko defar yàlla dogal dogaluko ko ñu jëm nag 2019 ma bëgg 2018 bii balaa jeex fu peste war a dem na fa dem lool laa soxla ma xam naa nag yaa ngi ci ñun ñiit ñi ngi ci dara ump ma ci waaye damay leeral nit ñi ni leen li ngeen soxla maa ngi koy wax daa newul ci sama poos su newoon ci sama poos dama koy def duma tàggu kenn am na dëkk bu nekk sama ginnaaw ci wetu penku gi courant mësu faa dem bërki démb laa génne 5 millions joxe ko das nanu poto ya lonk nanu fiil ya tàkk rek moo des te état defalu ma ko maa ko def. mais du du xaalisu maire bi maire bi amul dërëm dërëm amu fii laa koy waxee aw ma aw ma usine nit ñi fayuñu impôt biti yi duñu fay fan laa jëlee xaalis fonds de concours fonds de dotation loolu moo dëpp xaalis daa ñu naa ñu sunub xaalis la yor ban xaalis conseil yaa ngi nii dara amu fi conseil bu nekk dañ laa fal ci ab gox ndax benn conseil mas naa jóge ci gox andi commune bi ñaari dërëm mësul am ndax amuñu ko kon su ma dee def li may def sama poosu bopp laa koy jële damaa wax léegi ne baykat laa sàmmkat laa transporteur laa mais fournisseur laa amul menn at mu nuy dugg boo xam ne état bi duma la yoral lu mat 20 millions depuis 2004 ba léegi waxan naa fii mbay sàmbu teew may leen 38 village yi 2007 mennum man maa ma sa def 60 millions ci sama poste di ko joxe ba mu jeex jamono yu te kenn nga diw mais kii def lii nag su dikkee ànd ak yow waaye xam nga ni bëgg na laa jàppale waaye lii ku amul it di nga ko am ku deful cib dëkk di ko am kuy bedd kenn di nga ko am ku gëmul kenn di ko am mais defe naa ni yaakaar naa ni loolu amul te li may wax yéen yéen ma ko gën a xam cena ba dama ne amul ku fi am gàmm mbaa nga am ngénte mbaa nga am ab dëj te defuma ca la ma man li def lépp nag yombul waaye la ma am maa ngi ko cay def kon yaakaar naa ne nit ñi xam nañ li xew ñii nga xam ne ñoo dëkk cena ba mënuma leen a fay mënuma leen a fay ndax amul benn bis boo xam ne bisub ajjuma wala dina toog 15 jours te lu ñu def délégation ñëw fii ci sama kër ñu àndandoo añanoo naan ataay ñu sant ma gërëm te ma leen dara ak yëg-yëg la am ak bëgg président dama ne ñi bëgg président ñi ànd ak man ñiy nax président nag ànduñoo ak man. wax naa la ko dinaa la ko waxaat fii am na ñoo xam ne am na ñoo xam joxoon nañ leen ndigal ci élection yi passé ni leen wate leen contre ñoo jël téléphone woo ma ni waa duñ ko def ndax li koy def doy nanu ba pare di mbubboo ni président ñoom moom lañ àndal ndax yi dafa doy nag déetuma ko ci bàyyi maa koy fajal sama bopp déetuma bàyyi kenn di nax président. bu joxe xaalis jot ñu jox la ko bu watee jotee nga wate fu la neex mënatul am. moo tax ma bëgg président li muy joxe dina ko jox ñu ànd ak moom lii laa bëgg kon maa ngi sant ñépp maa ngi gërëm ñépp maa ngi jégalu ci kàddu yi di beral nag nuyoo waa Kër Yaaba bu baax ndax xam ngeen ni Kër Yaaba dëkk la boo xam ni Mamadou Diop Decroix fa la dëkk waaye dinaa leen leeral loo xam ni. musuma koo wax te moom moo taxaw ci presse bi wax ko loolu nag ñun maire département bépp la ko boole moo wax ni gox ba ma féete maire yaa ngay salax salaxee suuf si waaye waxul dëgg amul benn meer bu jaay fii suuf amul man boog man de benn mètre mosuma koo jaay kon maire yooyu jaay suuf da seeti fa mu ne mu wax ko moom ci wàllu boppam nag génn na këyit boo xam ni 1700 hectares nee na décret la ba wa kër yaaba kenn mënta noy wa tay ba ndaw kenn mënta noy ndax wax ku wax ñu la dañu nangu sa suuf ca war la war décret ko defal na ko décret ba ñu ci dara nak ndax képp ko xam and na ak président ñagalay xex ba barki dem ba ci mujj gendarmerie lañ muju képp ko and ak président ba mu and ak man mamadou diop mi ngi lay xex ñu dañuy nangu sa tol bi nu leen bindee ni suspendre nan ko maa leen ne lank leen kenn mënu ko suspendre xexu leen xuloowu leen ko doon bay bay leen seen tool ba kenn fekk leen fa maa leen ko wax lii nag laa bëgg monsieur le ministre nga jàppale nu ci décret moo ko signé woon na ko décret dindi dama bëgg nag lii mu jàll moom ci boppam mu dégg ko ba xam nit buy wax day wax lu mu xam maire département Thiès jaayu ñu suuf salax salaxewuñu suuf ñun lépp lu ñu def yoon moo nu ko may képp ku am sa tool nag mais bëgg ku la ko délibéré mais ma xalla boo dikkee wax ko conseil bi conseil bi yabal conseil commission domaniale ñu def enquête mais du la ko délibéré yaa xam noo koy def ñun toppatoowuñ ko lii moo fi xew leneen xewu fi kon yéen man sama wàll bopp dama wax barki démb ni leen élection yi li ma ci tax di sonn mooy président Macky Sall waaye bu doon man dong damay dem tëdd nelaw ndax bi may wut maire bi da ngeen a gemb samay bokk samay xarit samay am di jàmm samay dëkkandoo am yaakaar ci man ngir jox ma ko waaye léegi est-ce que déeti ngeen am fayday falaat ma te liggéeyu ma fayda jooju ngeen am nag nga xam déetu leen ma falaat te liggéeyu ma fayda jooju laa am ba bu ma liggéeyul du ma ñëwaat ci yéen man maay falaat sama bopp 2019 maay falaat sama bopp su ma liggéeyee ñii xam na nanu su ma liggéeyul ñii xam nanu waaye pexey kese pexey kese ak tuuma ak wax ju ñaaw jëlewu ma fi li la li la wax dama ne pexey kesse ak wax ju ñaaw jëlewu ma fi la ma fiy jële rek moy askan wi suma len wané wanee ma fi tégué ñu ànd ak man suma len suma len wané lo xam ne jël jëruñu ñu te ma tegaat bu ma fi teg li moy problème bi kon ma ngi leen di sante ma ngi leen di gërëm waye na ngeen déglu bu baax ba xam monsieur le ministre kan lay wax ni moom la président Macky Sall moom la fi teg na ngeen ko déglu bu baax maa ngi lay déglu bu baax nag maa ngi sant ñëpp maa ngi ba maa nuyu ñëpp ñi fi nekk di ci jiital suñu papa Serigne Thiénaba Baye Cheikh di nuyu bu baax njobet njobe njabootu Serigne Thiénaba di nuyu monsieur le maire ñu fi nekk ak mbooleem kilifa bu fi nekk moo xam imam la moo xam chef de village moo xam responsable moo xam képp koo xam ni ñëw na fekkee waxtaan ba ci ganu monsieur le maire Talla Diagne di nuyu bu baax sëriñ ngañ dem ba Sarr di la nuyu di la ziar euh, déglu nañu la baat yi xóot na am naa yaakaar ni dugg na ci nopp yi te génnagul di féliciter monsieur le maire Talla Diagne déglu naa orateur yëpp mais am naa yaakaar ni bu ñu génnee waxu sëriñ bi résumé nga lépp lu ñu wax di wax xale yi nii kuy wax toujours da ngay def attention parce que wax dafa jafe te presse bi léegi dañu koy yóbbu fu ne ci àddina donc booy wax toujours da ngay def attention parce que dafa jafe te mën naa yàq lu bare. am na benn penseur bu waxoon ni wax bu dul dëgg dafa mel ni bal bu génn ci canon li muy yàq day bari te dootoo ko mën a defar donc nañu ñaan suñu borom ba mu may ñu saa yi ñuy wax li ñu génnee mu nekk loo xam ni neex na dégg parce que dañu ni booy wax na nga seet ndax li nga wax dëgg la. da nga seet ndax fa mu jëm du fa yàq lu bari yaakaar naa ñaari yooyu am na solo ci booy wax maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di wax ni monsieur le maire Talla dañu demoon élection locale deux mille deux euh, président jooyoon ndigal wax nga ko sànq ni parti bi dafa am candidat te candidat bobu dafa am kuko ko joxoñoon ñu wara and ak mom ci benno bokk yaakaar ñu dem élection dama ci ñëwaat c'est pour leral rek nga du non, ah ñu nangu ko mbeur yi du ku daanu day ñëw la nga mu keneen ki naan nga ma nga président yebal ñu ñu ñëw waxtaan ba ànd parce que boobu mu bëgg a ànd ak président mais comme amoon nañu ñaari camp donc déggoo amuloon mais bi nga ñëwee xel dal na cene ba bu ñuy waxante dëgg rek parce que ñëw nañu fi ñëwaat fi xam nañu ni waa cene ba yow lañu ñu àndal parce que dangaa jege askan bi euh, yokk ci ni bi ñu dem élection sama cousin Émile nee na ma taala dina leen duma du dëgg mu ne da ngeen di dem rek mais taala dina leen duma mais léegi comme duma nga ñu nag léegi li ñu bëgg mooy ñu ànd comme ànd nañu président tàllal na la loxo nga nangu ñu ànd léegi léegi fi mu ne nii taala dinañu wax lu nekk ci képp ku fi nekk ngay yaakaar ne duñ la duñ la jóo yaa ngi nax sa bopp képp ku fi nekk yaakaar ne duñ la jóo amoon lu ñu lay jóowee yaa ngi nax sa bopp te ñii dàq jóow yaa ngi nekk ak sa xarit ma toog sama xarit nii ñu ngi jóow keneen boo génnee boo booy dem mu lay jóow boo demee booy génn mi ngi ci yow xoolal ma waa ji loolu kese moo fi nekk donc taala responsable mënul bañ ñuy wax ci moom mënta nekk parce que d'abord am na ñoo xam ni am iñaan ci position bi nga nekk am na ñu mel noonu nañu suñu borom bañ ñoo dugal ci liste boobu loolu rek la ñuy ñaan suñu borom mais am na ñoo xam ne noonu mel donc na nga def sa liggéey président dafa désigner du taala ce sont tous les maires qui sont qui ont décidé de l'accompagner nañu jiitu ku ku ko bëgg a liggéeyal da ànd ak topp ci ñooñu c'est clair loolu wax nañu ko waxaat ko loolu lañu yàgg wax du taala rek muy Momar Cissé muy Daouda Tine muy Moustapha muy ñëpp tous les maires président ne fa ni maire bi bu nangoo ànd ak ñun na jiitu suñu kaay suñu militants yi topp ci suñu responsable yi loolu kay jeex na wax boobu amatul te président dama leen di yëgal yónneewu fi kenn yónneewu fi kenn taala loolu mën nga ko miim président yónneewu fi kenn man maa la ko wax mais nag mais nag président bu sañoon bu sañoon ñooñu nga wax ñu jàppale ko lu leer laa wax aussi président yónniwul kenn nag mais ñooñu bu sañoon mu jàppale leen voilà loolu aussi il faut il faut il faut mu leer Euh, benen bi moy ni euh, aussi il faut que amna situation bo xamni ni buñ ci tollo, dañuy xol li ci kanam mais dañuy am aussi gestu ci démb parce que buñu waxé ni président deful dara je ne suis pas d'accord président amna lu mu def parce que maire yi ngeen gis seen maire yi seen maire yi ku ci nekk à part mii ku ci nekk président jox na ko ndombo tànk waa déet ku ci nekk président jox na ko ndombo tànk ils sont hauts conseillers ou députés ñoom ñëpp ba ambassadeur itinéraire bon ñoom ñëpp président am na mu leen jox léegi nag xanaa kay dolli li ma gëm nag mooy booy wax danga nga ni maa ngi gërëm président ci li mu ma defal tey léegi nag damaa bëgg ñu mu yokk ñu loolu laa gëm te yaakaar naa ni responsable loolu la war a waxe noonu la war a waxee mais doo taxaw ci sa kanamu militant yi nga ni président deful ñu dara loolu je pense que rafetul président defal nañu mais dañoo bëgg mu yokk ñu loolu mën naa ko gëm mën naa ci ànd extrêmement important beneen bi mooy nii li ñu waxoon bi président bëggee nguur gi lan la ñu waxoon wax ji yëpp dañu ne woon rupture président dafa ni damay dem ci askan bi dinaa defar yoon yi dinaa indi ndox dinaa indi électricité je vais soutenir les femmes mais président mi ngi ci loolu mais olof yi yéen a wax ni mënul xëy daj du dëgg mënul xëy daj fépp mais président mi ngi def li am lu am solo am na ku fi wax sànq ni am na cene ba defuñu fi dara mais Talla wax na ni village yi 18 ñoo ci des te 9 rek sur 50 nangam la woon. 51. 51 9 lañ ci defoon bi mu agsi te 18 moo des bon am na lu ñuy def signe bi donc euh, jërëjëf Talla yaakaar naa président aussi jàppale na la ci côté boobu am na lu des nag d'accord naa ci Momar Cisse mii li mu am yaakaar naa ci commune am amul maire bu ko am man de aw ma ko. maa ngi nii di ko wax ci télévision awma ko bi ma nekkee euh, ministre 2012 2012 ba 2017 y avait deux villages électrifiés dans mon village ñaari village lañu électrifié maa ngi koy wax fii ci télévision bi ñaari village la électrifié village bu ñuy wax euh, euh, kër Laman Yaboy ak village kër kër Massamba 2 pour ñu yaakaar ni peut-être dañoo électrifié fan den bàyyi feneen pour mu leer aussi ñaari village la ñu parce que maire yaa ngi nii lu ñu ma bàyyi ma fen lépp lu fi ñëw dama leen dañu séddoo goudron Fandène nag ku ci xool ma expliqué leen nu mu demee président Macky Sall nu mais num commune Fandène moo ànd ak président 2009 président ñëw sama kër 2 heures du matin la agsi foofu il est rentré à trois heures et quelque 4 heures muy ñibbi dakaar mu jaar ci yoon wi mu ni ma yoon wi bu ñu faloo dinañ ko def. musuma ko wax président yoon wi mo xey rek joxe instruction ñu defal yoon 2014 yoonu 7 km. Non, la démé 2009 man kese ma àndoon ak moom kenn de ak mom ma andon ak mom donc buñu défalé lolu loolu yaakaar nit ñi war nañu yaakaar war nañu gëm ni ñun mérité nañu ko mais parce que def nañu lolu non on n'a pas fait chez lolu loolu yaakaar aussi c'est pas bien benen bi moy ni en ce qui concerne les pistes tal wax naa la man dama am chance autoroute à péage bi jaar sama commune ñu am fa latérite bu ñu fa jël 4 km 500 lañ ma may ci ci ci piste 4 km 500 la ma chinois may ci piste vérifiable vérifiable 4 km 500 la ma jox ci piste ci sama commune ba légui PUDC dougul sama commune ci piste. benn kilomètre PUDC defu ko maa ngi nii di wax ci phase 2 bi la ñuy dugg te yaakaar naa ñeneen euh, communes yi dinañ dugg parce que yaakaar naa Touba Toul am na lu ñu fa def peut-être pas PUDC mais am na piste yu ñu fa def yaakaar naa euh, sama xarit Momar aussi am na lu ñu def dëkkam donc pour ñu xam am na solo pour ñu xam lépp li ñu def ci biir euh, donc commune yi donc di leen wax ni. président de la république dañu ko waxoon ni nous sommes d'accord pour la rupture c'est-à-dire Sénégal ni mu doxé. Khalis bi ñu jël ko diko duggal ci poste lolu jeexna. Khalis bi dañ koy def ci yoon yi dañ koy def ci ndox mi dañ koy def ci électricité moy khalis bobu. bu ñu nango khalis bobu ñu def ko ci électricité def ay ndox ak courant euh, courant ak piste ak ndox bu boba dootul am khalis bo xamni dañ koy puukare il faut que ñu d'accord aussi ci lolu bon tey légui nak bo nga affaire soutien bi aussi d'accord na ci 100 je pense que am ay xew yo xamni c'est normal que ñu participer ci mais ce n'est pas possible que que xew yépp ñu def ko c'est pas possible taala c'est pas kenn mënu ko muy président de la république muy Kenen. c'est impossible mais nak yakarna ni ci def suñu kenn du lay Dembe mangi ngi woon euh, jusqu'à six six heures du matin dañu demone fofu ci gamu bi tubaar fakal la ñu ngi féliciter organisation bi wax nañu foofu wax yo xamni ne day jëmale Sénégal kanam yakarna c'est ça le plus important donc limay may wax taala moy ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay féliciter ñi ngi lay encourager mais bul toppatoo wax yi ñuy wax à ba tu es le responsable yow la président teg fii yaa ngi liggéey liggéey bu rafet fexeel uuf ñëpp parce que loolu mooy sa rôle mënu tey yomb mënoo nekk maire muy yomb dina metti gisagoo dara sax am na ñoo xam ne dinañu ñëw ne ministre bi nee na ministre bi lépp lu ma wax mën naa ko wax fii amul lu may nëbb amul awma jotam lépp lu ma wax mën naa ko wax ci rajo sama téléphone bi ko neex mën naa déglu li ma ciy wax bon pour wax len ni tala amul dara lumay wax lo xamni day yak liggéeyu président mais président dafa bëgg nak ñepp jàppale ko ci 2019 pour que ñu mëna gagner élection yi yaakaar wa waa cene ba comprendre ñu lolu parce que li ma fi dégg te am solo te sëriñ bi wax ko moy ni 2019 nañu yalla may président gagner premier tour donc lolu mang ci ciy gërëm ñëpp sant c'est le plus important mais liggéey bi ñu def li ma la wax piste yi jaayaan jaayaan fa jaayaan séeréer pont bi jaar bangaaj dem tuubaatul incha allah dinañ ko def te wax yoon boobu depuis 1974 dañoo bind ci kayit bi ni goudronné nañ ko 1974 ñu ngi bind ci kayit bi ni la e est te kenn mosu ko goudronné mais incha allah dina am latérite dinañ ci def latérite ci 2018 bi bu soobee suñ borom pont bi commencé woon nañu ko mais inshallah dinañu ko terminer te am naa yaakaar ni dina àgg tuubatul ci 2018 am naa ci yaakaar du lépp lu ñuy wax nag mu am mais bii am naa ci yaakaar bu baax a baax te jour ba incha dinañu ko inaugurer ensemble donc maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di joxante rendez-vous ci beneen rencontre boo xam ni comme ni ko ni ñu la ko euh, ñaanee. ñu ñu ñu def ko ci ci fi non Diayenkel c'est dans le PUDC. koku mi ngi ci PUDC. Inshallah. non PUDC mi ngi ci PUDC bi légui sax da ngay ragal wax sax parce que bo waxé bu bu tardé ak ambulance bi effectivement aussi y a le problème de l'ambulance. on avait promis l'ambulance mais inshallah allah elle viendra bu soobee suñu borom elle viendra parce que président lépp lu mu la wax. c'est que amna ci yakar bu baax ba yombul nak même sa keur yenn say nga bëgg agné chef soxna ci dafa la yaboy lay def doñ mais da nga mais non la mais du parce que dafa la yaboy rek ngani ko ngani ko gënal keur gi dedet da ngay waxtaan ak mom bu benen yone ngeen sen nan ngeen lijjanti ba eh, coof bi ñew wala lenen donc lool la ma ngi gërëm ñëpp sant ñëpp jërëjëf